nekk fii ci Mbàkke Baari muy dëkk bi nga xam ne ci la Seexul Xadim radiyallaahu taala anhu xëy woon dem ci liggéeyam bi ñu nekk fi nag di fi liggéeyal sëriñ bi taarixu Mbàkke Baari mooy dëkk bi maam Maaram Mbàkke maami sëriñ bi moo ko sancoon ci jamono ay 1700 dëkk fi nag ab diir bàyyi fi ñaari doom ku ñu wax Ahmadu Soxna Busu ak Sahid Soxna Busu gannaaw bi nag mu gént lu yàgg nag Cheikhul Khadim radiyallahu taala nag desiwaat fi waaj fi liggéeyam bii bi nga xamante ne waaj na fi liggéeyam ba xëy fi nag dem mu gentaal lu toll juróom-ñaar fukki at yu manqué benn Cheikh Mouhamadou Fadilou na ñëw fi wane barab bi yeesal ko digal sunu waju sëriñ Cheikh Thioro ngir mu nekk fi di jàmm yàlla di liggéey di dundal barab bi mu nekk fi nag at yu yàgg lu toll ci euh, ndax 1964 la woon ba 2000 ci la 2001 ci la wàccu liggéey. noonu ñu ni njabootam nag ñu wéy liggéey bi nag tànn bis bi nag saa bu jëkkatee ñu dajee fekk mbokk yi bi yëpp fàttali ko bis bi barab bi daal kon barabu seexul xadim la boo xamante ne ay maamam maam maaram moo ko sëncoon bàyyi fi itam maamam ahmadou soxna bis mi nga xam ne mooy wajur maam aswaalu mbàkke mi wajur soxna jaara wëlbatiku waat sëriñ bi deesiwaatalaat fi boppam waaje fi liggéey bi cheikh mamadou fàllu la deesiwaat fi nag yeesal ko bàyyi fi sunu wajur sëñ cheikh coro mbàkke muy def nag at mu jot mu làqu su liggéey bu nooree mu dem ci nit ñi nag ko Sëriñ Fallu digale woon loolu daal mooy taarix dëkk bi. sëriñ bi moom ci uh, at at mi nga xam ne ci la mujjee Touba uh, ci la ca koor googee ba mu jeexee ba mu waree rek dafa waree Touba rek jëm si Mbàkke Bari moo ak si ñaari fani koor yi laata mu fi ñëw nag. tax dafa am sabab yu bare bari yu tax mu mu ñëw fi bi ci jëkk mooy dafa bëgg fu mu wéetal yàlla wéet ak taalib yi ngir mën leen a defar ndax booba Touba sanc na ko am fa lu toll juróom-ñaari at ñu ëppoon ci mag ñi mu wàcce leen ñenn ñi sampi ay kër mbir mi nag gën a yaatu nag te moom sëñ bi bëggewu ko noonu mu bëgg fa gën a fi tax nag mu sempeku ñëw fii ngir bëgg fee wéet ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bëgg àgg ci yàlla ak ñuy jàng euh, moo taxoon mu ñëw sanc si barab bi mu doon barab boo xamante barab bi ay maamam la moom sax baaxuwul di dekkal ay barab bi maam waaye fii la am ndigalul waaje si fi liggéeyam bu màgg boobu moo tax nag mu ñëw fi ak njabootam yépp nag ak mboolem taalib yi nga xam ne jotuñu mën a wàcc diir bi mu fi nekkee itam nag dafa mel ne nag dafa woote bi ci la gën a rëy nag adduna bépp nag fu ne waaye jóge fa ñu fekk si ko Mbàkke Baari mu doon yëngu bu boo xamante ne tiiloo na tubaab yi loolu moo gën a sabab sababu saayir bi ba tax ñu am ay wóoldiku ci moom waaye sababu baatin bi moom mooy moom ngir mu ñëw fi waaji fi liggéey liggéey boo xamante ne bu ñëwee ci la jaam yàlla yëpp xaj. boo boo xoolee ci saw sakkoor bi nga xam ne moom moo ko bindal boppam di ci tontu naar bi ñu Abdou Latif daf ko ne euh, ña ma génne ci sama kër gi nga xam ne dama ko tabax ca jolof ci jàng ak jàngale kon sëriñ bi kon noonu mu la ko rek jàng ak jàngale ak yéegéen ni ñu yëg jëme leen ci yàlla wéet ak ñoom loolu mooy li ko andi barab bi loolu nag moo tax bi ñëwee mu taxawal fi nag ñetti daara. benn daara bi mooy ñuy jàng alxuraanul karim ñooñu mu féetali leen suñu daam Abdourahmane Lo mu nekk fi di jàngal alxuraan ñi nga xam ne ñooy jàng xam-xam sëriñ bi ci boppam ak maam Thierno féetewoo leen di leen jàngal xam-xam mu am beneen daara boo xam ne daay tarbiya la boo xamante ne ñoom dañuy ñaq ngir jëm yàlla ñooñu si mooy dem si Amadou Ndoumbé jiite ko ngir lu jóge ci daara ji mën a dundali ñuy jàng xam-xam ak ñuy jàng alxuraan. ak ñi nga xamante ne dañ fay ñëw ngir sëñ bi yéegi leen jëmaleen ci yàlla organisation bu mel noonu daal fi sëriñ bi defoon muy jaamu jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak wéetal ko ak liggéey njaboot gi bi mu ñëw itam àndoon ak uh, ñu bari ci ñi nga xamante ne jotuñu woon a wàcc maanaam ku dul ku dul benn benn yi wàccoon ci Touba daal bi muy ñëw fii sëñ bi ànd na ak moom ànd na fi itam waa këram mooy na son awa buso ku mel ne soxna Fatima du maam ku mel ne soxna Penda Buyo ku mel ni soxna Fat Sida Libaas ñooñu ci waa këram ñoom la àndaloon fi nekkoon itam ci ay doomam itam xamal sonn na ci Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne moo doon taawam te boobu mu toll ci fukki at ak Cheikh Mamadou Fadilou ak Cheikh Mamadou Lamine ak ku ñuy wax Seydou Ahmed ñooñu daal bokkoon na ci njabootam. ab taawam itam soxna Fat Ja boobu war naa toll ci ay fukki at ak juróom-ñett juróom-ñeent boobu itam moom it mi ngi fi ak soxna Fati ni mi nga xam ne. mooy taawub sëñ Mor Jaara ñu ci gàttal daal kon njabootam ak njabootu ay bokkam yëpp daal ñu la àndaloon ñëw fi ngir sa euh, jaamu si yàlla wéetal fi yàlla liggéey fi yàlla yonent bi sallallahu alayhi moom tar na lool waaye nag euh, dañuy fonk rek mesures barrières yi euh, fonk ko bu baax a baax rek bépp matuwaay boo xamante daal bés ko defee mënees naa mucc ñu mbas mi rek. fas fas nañu yéene daal taalib yeeg ak ñi fi ñëw ñëpp ñu wàcc ko waajtaay wu toll wu toll noonu bu ko defee nag léegi dañ koy yendoo rek bu takku saanee euh, dana def ay waxtaankat ak exposition yoo xam ne moom nañ fi def wa incha allah daal dañ daañu fonk misir barrière yëpp incha rabbi euh, déedéet déedéet mu am cérémonie officielle xanaa cérémonie religieuse toog waxtaani sëriñ bi waxtaani euh, histoire sëriñ bi. loolu moom yàgg nañ koo sàkk lool ndax. barab bi ci boppam moo moo moo moo ko laaj euh, bëggoon nañ fi ndox yàlla dimbale noonu am nañu ndox bëggoon nañ fi courant yàlla dimbale am nañu courant waaye nag mu des nag yu baree bari lu mel ne daara joo xamante ne daara moderne lay doon ndax bu ñu nee daara moderne mooy njàng dañuy bañ gone yi di wëndeelu di di yalwaani ak di tumuranke te fii am nañu fi wattu alquran dugg ci faranko arab bi ba am ci ay lijaas ba dem université di jàng loolu kon su modernisation mënta weesu loolu waaye nag mu des nag gis nañ ne état bi fu ne ma ngi tabax ay daara moderne te amaguñ ñu fa toog di jàng kon nag fii ñun modernisé nañ ko ci suñ kem suñ suñ kem kàttan kon nag mu des état mu jàppale nu ci ci li nga xamante ne mooy njàng daara ji ndax fii daal ñu ngi fi jàng alxuraan di fi jàng xam-xam di ko wattu itam di dugg ci franco arabe bi di ci jàng itam di dem ba am ak université loolu suñu njaboot yu bare bare ñu ngi ci loolu ci loolu lañ nekk waaw wàllu faj itam euh, xam nga fi caa caameen moo fi am case de santé poste de santé la ñuy dem sori na euh, léeg-léeg sax ñu am jafe-jafeñ lool nit toll fi ci mucc euh, bu dee guddi dañuy am jafe-jafeñ ba tax na daal poste de santé yàgg nañ ko fi bëgg nag yàgg nañ ko ñaan bu yàgg ba tey ñu ngi koy sàkku ak yoon woo xamante ni itam dañu koy tële moom ñëw ci biir kër gi ak itam dëkk bi tam comme ni ñuy def si yëpp nag ñu def ko ko ndax ku ci gën a yaayoo amul ndax bu ne Daaru Salaam rek ne Touba gannaaw Mbàkke Baar rek lañ ci teg te fii ci Jolof tam benn dëkk magu ko ci mu doon dëkk boo xam ne dëkku cosaan la boo xam ne maam Maaram a ko sancoon bàyyi fi ñaari doomu amul soxna bu say soxna bu sa sëñ Touba wulu bi daal fi Cheikh Mamadou Fallou desiwaat fi bàyyi fi suñu waa ñu nekk fi kon daal jàpp nañ ne bépp syntérologie boo xamante ne ñu ngi koy toppatoo di ko defar benn gënu ci yaay mbàkki baar yi. loolu loolu loolu war ndax barab bi ci bopp mooy barabu histoire boo xamante ne euh, symbole yu mag war na fee man a am sax boo xamante ne kenn dootu ko nattable ndax lu ne màggalu Tuubaa sax gannaaw fii la xew-xew bi xewoon mën nañ ko fi waajale waxtu bu ne kon mën nañ ne sax màggalu ren gi moom dana dana bokk ci yi nga xam ne day tombeek waaj ñu waajale ko màggalu Tuubaa ndax sëriñ bi woote na ko xam ne nañ ko wisi kon nag na nga xam ne moom la sëñ ba soxla ci Touba rek seen nañuy waajale màggalu Touba ci mesure barrière ak la ci war lépp rek te woo te ñëpp nag ñëw màggal si wo loolu itam nañ ko waajal fii fi Mbàkke Bari sëriñ bi xam xam nga sëriñ bi moom jamono yooyu dafa dafa dafa xaw a yàgg ndax jógee na fi dem ci géej gi juróom-ñaari at wëlbatikuwaat desiwaat ñu yóbbu ko Ceen yóbbu ko Njaareem kon bu fekkee ay bagages yu des la xëy na fa muy gën a mën a dese mooy fa mu mujj dundee waaye fii daal fi fi des daal mooy pàkk suuf bi nga xamante ne fii la jumaan ne bi mu doon jaamoo yàlla daal mooy néeg bi jàkka ji mu doon jullee mooy jàkka ji kër gi mu dëkkeewul mooy kër gi. néeg bi jagle yi mu am mooy ku toll ne Cheikhul Khadim radiyallahu taala def bu mag boobu waajal fi yoonu géej gi nga xam ne daf ne sababu sama tukki bi yàlla dafa namm ci man ma am ci ay daraja yu kowe yàlla dafa namm ci man itam ma rammoo ci sama sama nit kon loolu nee boo xam ne ci ko sëñ baa waajale wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci takkusaani ajjuma ji nga xam ne bët seddi gaaw maanaa la 9 août la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo fi penkonteeg moom yaxasatan laa ma ne ko imsi laa tax sa dara kon muy barab boo xamante ne ku ne kuy xañtu rek war a xam ne fu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wàcc wa ahlu fa tey se wax nañ ne itam nit yàlla yëpp yëpp yëpp fekk se nañ ko fi ci fan yooyu ngir wàccaayu liggéey bi mu doon barab boo xamante ne barabu ñaanukaay la Euh, te am nañ ci ay firnde yu yaato yaatu yu bare bare yoo xamante ni gis nañ ne daal képp ku fi mos a ñëw daal ngir aajo suñu borom jàppandala na ko aajoom joojee kon nag te Cheikh Mamadou Fall itam dafa waxoon ne jar na sax dox dem fa ko mun paas sax daan jar na jox dem dem fa daan yebal ay nit itam di leen wax ne leen na ngeen fa dem siyaar yi loolu kon muy doon barabu siyaar boo xamante ne daal euh, gannaaw Sëñ Tuubaa fi la waaji daal li mu amoon lépp mu ne bis bi ma fi xëyee li ma amoon ci yàlla yunt bi ci bis boobu laa ko amee kon ak ku bëgg ku bëgg dara ku fi ñëw ku nee rek jàpp nañ ne boo fi ñëwee man fee dajeek suñu borom ma nga fi sàkku yëpp suñu defal la ko sëriñ bi moom al al alxuraan moo moo moo doonoon ab liggéeyam ci la daan liggéey ci lépp ba noppi itam nag e, takku saan googu itam nag ci la sange woo benn xasida boo xam ne mi ngi ko tënki xasbunallah wa ni'mal wakilu mooy xamitu man yaasimuni mina dara min kulli seytaani wa jinnin wa basar sëñ bi wax na ne xasida googu bi mu bi mu bi mu ko bi mu noppee ci takkusaan ajuma jooju ci teewaay yonent bi sallallahu alayhi wax na ne liggéey ba mënoon naa yem foofa ndax booba suñu borom aar na ko te sañe na ko ba noppi kon daal te se moom lem jub dàgg na itam wax na ci waaw na di wax ne xasida googu di doy na doy na ci lépp nag gannaaw ci biir nee bi la ko taalife woon fii la sañe boo fii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk kon sëriñ bi moo am liggéey mooy alxuraan ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom kon. barab bi ñu taxaw nag mooy fi ñuy wax baytul xalawati te euh, sëñ bi defe woon fi xalwa bi nga xam ne mooy xalwa bu yàgg bi nga xam ne moom la doon waajee yoonu géej gi te mag ñi daan ko wax néeg bu mag bi ni ko sëriñ bi waxee léegi rek fii la sëriñ bi gisee yonent bi wa sallam yaqashatan la manaama sëriñ ne bi nga xam ne sëriñ bi mi ngir moo war a ñëw fii ci Mbàkke Bari wax nañ ne boobu bi mu gis yonent bi dafa am lu mel ne ab rideau bu woyof boo xam moo doon dox digganteem ak moom waaye munta laal jëmmi yonent bi sallallahu fii waaye wax nañ ne bi mu fii le 9 août 1895 bi nga xam ne sëriñ bi taarif na xasida ne moom la sëriñ bi doon leeral léegi muy xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ci la ko bi sallallahu alayhi ngi wax ci biir xasida gi kuffa ak kuffal musrikiina an nii bi ahli badrin waccaxlanum xis nii néeg bi nag niñ ci mën a tegee loxo nii wane ne fii da sëñ Fallou Mbacké mi nga xam ne inauguré na jumaa ja le 7 juin 1963 la ñëwaan ñëw ba ci néeg bi mu wane ko ne fii bi nga xamee ne gas nañ dañoo génne li ñuy wax fondement yi li ñuy wax buut mooy daggitu bant yi nga xam ne ci la mag ñi daan defar seen néeg yi wax nañ ne bi ñu gasee dañoo génne dañoo génne dañoo génne buut yi kon daal fii mooy néeg bu mag bi nga xam fi la gisee sëñ bi gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jahran mu signé yoonu géej gi le 10 août 1895 mu xëyee fi dem ci liggéey bi yonent bi sallallahu ba dellu si am na xasida goo xam ne ci la firi taalif bi ni mu daan ànd ak alquranul karim moom la doon jëfandikoo waaye ci la sëriñ bi tënk xasida goo xam ne ma ngay wax ci biir xasida ga wa xaala bi hasil xasidati taazamtu asiyata yowma aljumaati xiina asamtu ala almasiri yowma sabti mahum baxda an xasanani rasulullah sallallahu alayhi wa tax sa dara sëriñ bi dafa wax ne euh, aay bii di xasbunallah wax ni ma ko ci laa tënk xasida goo xam ne moom laa sangewoo ci ngoonuk ajjuma gi la 9 août fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar yenn bi sallallahu alayhi wa dikkal ko mu taalif xasida googu di wax ci xasida gën a xamituma yaasimu nii min ad-darar min kulli sheytaani wa jinnin li ñuy wax sant yàlla maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom mu musal ci loori seytaane ak loori jinne ak loori mbindeef te ñooñu ñoo ko doon fexeel ngir bëgg ab toolam fay lislaam fay ne ko suñu musaakaar di wax rek dinaa falaat wànqaase di dëjj buut ba sànni ci àll ba tasaare tool ba loolu la tubaab bi bëggoon euh, loolu la tubaab bi bëggaloon euh, sëriñ bi bi mu ñëwee fii di woote lislaam fii la jóge kon ci néeg bi la génne dem ci jàkka ji taxaw ci buntu euh, fi nga xam ne fi la doon tàggatoo taalibe yi kon daal loolu mooy cosaanul xasida bi ñu fi ñuy wax mawdiul bi taxawoon doon tàggatoo taalibe yi ci suba fukki fan ak juróom ko Cheikh Mahamadul Fadul na sëñ Fallou bi mu fi ñëwaatee 1963 1895 bi dëkk bi génte ci saayir ba bi mu ñëwee yeesal dëkk bi moom moo wane ne fii la guy gi nekkoon kon barab la boo xam ne daal ni ko Cheikh Mamadou Fadilou nettalee nee na sëriñ bi bi nga xam ne mi ngi wàjji dem ci yoonu géej gi ñetti jataay la am ak ñun benn bi ñun ak mbooloo mi yëpp benn bi ñun ak maam Thierno weneen yoon wi man maak wax nañ ne am na lu mu leen dell ci ci ci ci ci ci woote boobu nga xam ne ñoom ñaar kese la ko jegleel wax nañ booba mi ngi dugg xur wi jëm jeewal woo leen ñoom ñaar ne leen yéen ñaar di maa ngi dem ci géej gi te ñëw te su ma demee ba ñëw da ngay ma liggéeyee liggéeyu mag ca Tuubaa bu pare nee lay mel loolu moo sabab sëñ Fàllu bi nga xam ne jumaa ji mën na rek wax nañ ne xeer yi desoon ci jumaay Touba ji le 7 juin 1963 bi mu inauguré jumaa ji xeer yi desoon ci jumaay Touba ji wax nañ ne fii la roñ andi ko kon fii dëkk la bu mu amoon yéene barab bi ñu taxaw daal fal lu ma ko wane jëmmi gi nag nekku fi woon ak rat gu moo fi nekkoon waaye Sëñ Seex Jooreel bi mu amee yéene tabax jàkkee Sëñ Touba ji def ko jumaa guy gi dafa saxoon ci biir jumaa ji wax nañ ne am noor sax la ko fi jëmbat ngir def li saxaar bi mu jebbee moo xam ne fi bëggal Sëñ Touba bëggal ko fi yoonu murit bëggal ko fi desam bi yëpp dana am kon daal fii mooy barab boobu. lim leen wax daal dane leen lii may bëgg a sóobu de soxna Fat Dia mi nga xam ne sëñ bi nettali ko ci biir bokk na ci ay taawam mooy taawam bu jigéen sëriñ bi mi nga xam ne mi ngi waaj dem ci yoonu géej gi wax na ne le 9 août bi dëkk bi guddi gi daf leen a woo ne leen fan yii yi ngeen gis maa ngi am lanteeg tubaab bi ba yónnee naa maam Thierno Ndar li tax may euh, li tax may dem ci géej gi loolu laa leen bëgg wax lu mu doon daal ne leen bu dee ak wilaya taxul may dem wilaya mooy fal nit ki mu mu sut ay moroomam ndax boo fekk nag mu seexal maam Seex Ibrahima Fall sëñ Ibrahima Sall Njaañ sëñ Daaru Asan Njaay seex yu mag ñuy dégg yëpp boo fekk nañu mu seexal leen waaye sëriñ bi daan leen li tax di dem di mooy dama bëgg a taqu yonent bi a nga xam ne moom laay bëgg a yanu nag képp koo xam ne bëgg nga cër bi mas nañu ko jéem a yan waaye kenn mësu koo yëkkati ba mu wees say woom man sëriñ bi dinaa ko yëkkati liggéey ko ba mu sotti loolu la sëñ Musaa Ka di wax yan ba nu yonoon xutbu ya abdal te attanuñ moo ko fab raw gaay kon fii la ko waxoon ci ci ci bi daan ne leen booba am na ku fa ko xam ne ay atam yu kawe kawe la ku sant sànq sëñ Daawur sànq lañ koy wax sëñ bi daat koy woo daan ko mel ne ne fere yi dañoo xaw a tiit mu ne ko waaw ndax tubaab yi ngay bëgg am lanteel di te ñi ko jiitu ñëpp musuñ ci am na jàpp ci tàmbale ko ci buur yi ak eh, yen ci ñi doon wooteel islam di jihaar ñoom ñëpp faagaagal na leen loolu moo waral ñu am njàqare ci ñoom waaye sëriñ ba la ma ko cegal daane ko du ma ci des du ma ci daw kon loolu kaaraangi góor gi ci barab bii la ko amee mooy bara bu tedd bii nga xam ne ci lañ nekk sëriñ bi wax na ci asiru lu daw yaram ndax fii la tubaab yi fekkoon sëriñ bi ngir tasaare ak njabootam danaa falat wànqaase dijj buut ba sànni ci àll ba tasaare tool ba sëriñ bi di ko wax ci asiru xusuur yi xalal wal ahlu an ni tafarraqat li matahi lazi anhul madiyul xasiru muy muy muy muy muy goo xam ne metti na ci ci taalibe yi ak ñi nga xam ne Euh, maanaam dañoo yërëm sëñ bi ci coono bi waaye sëñ bi moom xam na li nga xam ne mi ko doon amee ci biir yoonu géej sababu xaybati ya an allah aradan anaala min hujaha wa an akuna saafihan li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi loolu daal ci barab bi la amee woon maanaam fii ñu taxaw tey mooy teen bi nga xam ne moo nekk Mbàkke Baari teen bi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke moo ci indi xar baax joo xam ne genn la ci àddina ko baaxoo gas waaye teen buñ gas ci kaw ba loolu beneen mbir la ci diggante moom ak yàlla Cheikh Modou Fadal wax ne Sëriñ Tuubaa gasoon na fi teen waaye jotutoon a bënn maanaam bënn gi fekk ko fi ndax juróomi weer la la fi def comme ni ma ko waxee woon léegi waaye teen bi ndox mi njëkkee génn bañ euh, xam ne teen bii képp doy na nit passé dëkk ak dëkk fi ku xool ni yéen ñi nga xam ne yéen a koy jël gis ngeen ci kaw montagne la ne ku yàgg gas teen ku ne xam teen ci xuur lañ koy gas nangami meetar

mu bënnee ci ay loxo waaye si Amadou Bamba doon na fi gaslu ab teen wax nañ ne bënn gi fekku ko fi kon nag loolu lu doy waar loo xam ne li ci gën a yéem nit ñi daal mooy teen buñ gas ci na ne teen moom ci ko daan da nga xam ne teen kenn kon loolu si Modou Moustapha bu fekkee ne laaj bi leer na yi am na yu bëri sax ndax euh, wax nañ ne biñ koy gas mag dañ doon def saa yuñ gasee du ñu jot ndox mais sama du faada bi mu leen joxee ndigal ak lam ca yónnee suuf sooso ñaan ko bañ keroog la egg la la la teen bi explosé maanaam keroog ko ko am na ay taarix yu gudd gudd gudd na jataay bi duñu ko may yoo xam ne def na ko ca mooy mboolem ñi nga xam ne fekkee woon nañ ko daf leen wax ne ku ci naan mboolem saafara ne nekk jàngoro joo xam ne nekkoon na sa yaram saafara la kon da ngay bi kon képp yëpp jàngoro joo xam ne nit am na ko boo ci tànkee naan jàpp nañ ne suñu borom dana ko dindi ndax waxi sëñ Modou Fadal ko dindi